bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilaalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuri lfahmi waftax alayna bi maxrifati lcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wanshur alayna xadaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa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 ñoo ngi nuyu soppe Al Misbah yépp di leen siyaare bu baax di leen jégglu it ci waxtaan yi nga xamante ne ñu ngi ko doon baamu ginnaaw bi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala ci tawféexam ak mbaaxam dogaloon nañu wuute wuute boo xam ne wuute yiw la niñ leen ko waxee woon demoon fële nga xamante ne mooy màkkatal mukarram bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoo wujj woon wootet borom bi subhaanahu wa taala ñoo ngi leen di nuyu bu baax di bég ni nga xam ne noonu ngeen doon àndeek ñun jotaay bi waaye di leen ziyaar ñaan borom bi subhaanahu wa mu nangul ñu euh, jëf ji nga xam ne moom lañ jëfi woon dugal ko ci ak matam waaye jéggal ñu mboolem suñuy rëcc-rëcc te nangu mboolem ñaan yi nga xam ne ñaan nañ ko fa te ñaanal ko ñi nga xamante ne ñoo ñuy déglu waaye ñaanal ko jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yépp yàlla na ko borom bi subhaanahu wa taala nangu di ndokkeel bu baax ñi nga xamante ne ñoo demoon aj yépp ñi nga xam ne ñoo aj ba jeexal ñibbisi ci jàmm yàlla na yàlla nangul leen seenu aj ñi nga xam ne ñoo doon organiser di yóbbu nit ñi di ci tegoo ay coona yal na borom bi subhaanahu wa taala nangul leen euh, jëf yi nga xam ne doon nañ ko jëf te jéggal leen seeni rëcc-rëcc ñi nga xamante ne ñoo fa génn àdduna yal na borom bi subhaanahu wa jéggal leen ndax euh, am na fa moo xam ñi nga xamante ne ci réew mi leen dëkk moo xam ñi dëkk feneen te ñëpp doon ay jullit wuy si woon euh, woote borom bi subhaanahu wa ngir jéem a li seen juróomeelu ponk lislaam am nañ ci suñu mbokk aas kebe wala asan kebe suñu asan kebe alxaaji yàlla na ko yàlla yërëm dëkkoon fi nga xam ne mooy Louga ñun laa àndaloon borom bi subhaanahu wa dogal mu génn fa àdduna ñu ngi koy jaale ay mbokkam yépp ñi ca Louga ak ñi ca Ndakaaru waaye di ko jaale le groupement Khadim Rasoul voyage bi nga xamante ne ñoom la àndaloon di ko jaale soxna Joor Jeng mi nga xam ne moo yor assance bi nga xam ne ca la jaaroon waaye ñi nga xamante ne ñoom la bokkaloon nekk 10 01 ñëpp ñu ngi leen koy jaale ñaan borom bi subhaanahu wa mu jéggal ko lu daw yaram la ndax ku tàggu ay mbokkam dem tukki tukki bu mel ni aj bu njëkkoon bu nit daan dem daanuñu ko xaaraat ak dellu séem moo tax daan nga dégg sax ñu naan ay soxnaam fireeku daan nga dégg ñu naan dénkaane mel ni ku miraas boppam ndax at yelam daan yàggeeg yoon wala ca daan nekk ci ay jafeñ-jafeñ léegi yàlla dogal lu mat fukki fan ak juróom nit man caa dem dellusiwaat day mel ni dem dellu siwaat day doon loo xam ne lu war a mën a nekk la nekk ci loxol nit waaye borom bi subxanahu wa taala moo bind bakkan bu nekk fa mu war a yem ak nam fa war a yeme moo bind kañ la waaye moo xam fan la moo koy dogalit nam ko neexe bu boobaa alal ak pexeek lu man di doon dootu ca mënati dara léeg nag mu def ko foo xam ne dala dut gënal yow wala da dut gënal nit ñi ndax ñoom bu ñu sañoon mu defee ko ci ñoom ndax mbiri nit a mel noonu defe ko sa biir yi mbokk say mbokk taxawul la seen bopp ak ak ak waaye nag mën naa mu gën ci ka nga xamante ne moo dem ndax damay wax ne ku aj ba noppi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bu dee def nga ko ni nga ko war a defee dangaa mel ne ku eh, kuy door a gane àdduna ci seen wecc ci ay bàkkaar ku mel noonu bu Euh, bu ca dara tuftalut loolu mu wuy ji boroomam subhaanahu wa wuy ji na ko ci anam goo xamante ne anam gu sell la anamu yéene jaamu yàlla anamu set wecc ci ay bàkkaar waaye dajeeg borom bi subhaanahu wa doon ku ñu jéggal ndax diggante bi euh, taq xajaatu fa ñun nag suñu diggante ak ku faatu daa am yeneen yoo xam ne moo ñu ci yitteel waaye li ci yiteel borom bi subhaanahu wa mooy ruugi moom yóbbu na ko fa ko soob yàlla na doon fa dajeek bëgg-bëggi doomu aadama bi te mooy na te borom bi waajale ko ñi nga xam ne ñoo ko gëm fajaruk dimanche daan nañ ñëw ci lu jëm ci wàllu ñaan yi naa bunt boobu ma ubbi jëm ci aj geek yi nga xam ne moo ci aju dinañ ci ñëwaat ci yennat yoo xam ne ay sërica la yoo xam ne dinañ ko indil soppe yi nekk ci almisbaax baaxewaat leen ko ndax jot li doon nañ leen seenum nuyoo ku baax ko tëdd ca madinatul munawwara sang bi sallallahu alayhi wa waaye jotle woon nañ seeni ñaan ca kaabatullaahil musharraf ca makkatal mukarram ñaan nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne mooy ngànnaayul jullit kon danga nga ciy dégg ne ngànnaay ki nga xamante ne daa am lu muy moytu wala lum jort ne mën na koo tàqaleeg moom da koy yor euh, boobaa li tax ñaan nekk ngànnaayul jullit mooy ngànnaay mooy arme bi nga xamante ne lim bëgg mu sori ko ñaan la koy buuxee ngir mu sori ko lim bëgg mu jege ko ñaan la koy jéem a ñoddee ngir mu jege ko nga xam ne digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala lim ciy jàpp rek mooy boroom bi di ab sang wéy di nekkub sangam moom itam mu nangoo doonub jaam wéy di doon jaamu boroom bi subhaanahu wa taala moo tax boo ñëwee ci alquranul karim da ngay fekk yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te ñooñ ñooy ñi gën ci nit ñi ñoo yonent yi ñaane seen borom subhaanahu wa xeetu ñaan wu ne ñoom ñëpp kenn mucc ci te garaat bi nit di takk garaat bi ci gën a rëy mooy doon ab yonent boroom bi subhaanahu wa taala takkal ko aw gaay am ca ñoom ñum seppi tudd leen ci alxuraanul karim boole leen ci programme bi loolu nekkaat beneen garaat tànnaat na juróom ci seen biir gënal leen ci ñëpp ndax seenu dogu loolu nekkaat yeneen yeneeni garaat juróom yooyee mu tànn kenn ca ñoom teg ko ci kaw ñépp mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp a baax ñoom yonent yi waaye moo ca gën ñoom ñëpp a tedd waaye moo ca gën a tedd ñoom ñëpp a jege borom bi subhaanahu wa waaye moom moo ne rëkk ci moom ñoom ñëpp la yàlla fonk waaye moom la yemale wut kenn ñoom ñëpp a góorgóorlu waaye moom la borom bi subhaanahu wa taala taf ci boppam li kulli min jumlatil axyaari martabatun lakinnama ahmadul muxtaar muxtaaru suñ tubaa ba mu koy tàgg dane li kulli min yi ñoom yonent yi ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñi nga xamante ne ay tànneef lañ ñoom ñi nga xam ne ñooy axyaar yi ñoom ñëpp martabatun am nañ ay garaat am nañ ay garaat de ñoom ñëpp kenn ku ne sa mbagg diis na gann waaye nag ci biir borom garaat yooyee ca lañ tànn yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax mu féete leen kaw ñoom ñëpp ñoom ñooñ nga xam ne ñooy ñooy al anbiya boo ko tàmbalee ca suñu maam aadama alayhi salaam da dem ci alquranul karim ci suratul araf fekk fa muy ñaan boroom bi subhaanahu wa moom ak soxnaam Hawa Hawa Hawa di soxna si Adama ndax dañoo bokk programme yàlla daa bind aadama alayhi salaam mel ne koo xam ne danaan li may santaane Adama yow dong mënoo ko moo tax dama lay wutal damay wut keneen koo xam ne moom it day bokk ci programme bi ngeen ànd ko nga jiite ko waaw ngeen ànd ko jéem koo doxal yow nga jiite ko muy xawwa li yàllay santaane bu ko aadama dong manoon du soxla xawaa di ñëw waaye programme mu doomu aadama ci kaw suuf gis nga ni mu bindoo góor ak jigéen nga xam ne dañuy mottalante dañuy mottalante maanaam amut ku naan maa gën a tedd déedéet waaye dañuy mottalante dañuy mottalante kenn ku nekk daa am wet goo xam ne yaa fa ne te àdduna soxla ko te mënta ñàkk borom bi subxanahu wa taala ne ànd leen booloo leen aw nit ne yéen man di génn ci seen biir waaye ñaan googu aadama alayhi salaam ñaan dangay ngay dégg muy wax moom ak soxnaam sa xawa qaala rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin ña ngay wax naan borom bi subhaanahu wa ñun day tooñ nañ suñu bopp tooñ nañ suñu bopp man naa am muy ba ñu lekkee ca garab ga nga xam ne da leen koo tere woon garab ga nga xam ne da leen koo tere woon waaye ña nga naan tooñ nañ suñu bopp ñun day tooñ nañ suñu bopp nit dina tooñ boppam ba tey bàkkaar ku koy def rek yaa ngi tooñ sa bopp waaw léeg nit ni man kay maatooñ sama bopp ma ne ko waaw mën naa nekk ndax nit yàgg naa tooñ boppam waaw ndax nit yàgg naa tooñ boppam moo tax léeg nit ne man maatooñ tooñ sama bopp fekk daa dugg ci loo xam ne jàpp na ne waru ci woon a dugg waaye yëg na ne moo ci dugal boppam léeg mu doon koo xam ne daa jàpp ne daa defal njëkk koo xam ne waru ko woon a defal mu fayee ko njëkkadi mu ne ko maatooñ sama bopp waaye aadama bi muy ñaan boroomam subhaanahu wa taala ñaan gi daa ànd ak tuub ñaan gi daa ànd ak tuub ña tuub gi mooy euh, li ñuy wax al itiraafu bi danb maanaam nangu njuumte li nangu li nga def lu neex borom bi subhaanahu wa la waaw lu ko neex la maa tooñ maa tooñ man la de sama manki la de maa ko def de yàlla baal ma waaw yàlla baal ma bu ko defee mën la baal naa la baal naa la léeg sax nit nit di ko wax moroomum nitam ci bu fekkee da tooñ waaw bu fekkee da koo tooñ te seytaane mënu ko mu ne maa la tooñ maa la tooñ de door a wax baal ma <laughs> waaw waaye baal ma rek ni cell léeg-léeg mm, mi nga noonu dafa am aw baalu win loolu xeetu tuub la dafa bokk ci tuub mooy nangu gi nit ki di nangu ne moo def moo tax mu ne zalam naa naa ndax lii lépp waxoon nga ñu ko su fekkee lekku garab ga la ca aljanna duñ ko delloo iblis ndax moom kat teeloon nga ñu koo présenté nañu seenum noona te teraanga ñu amoon yéene ko te bum ñu ko yéene wut nëbbut ne yéene wuñu ko waaye dañoo woon ci penc mi ne ñu teraanga ji ngeen am kat yéenewu ma leen ko dane fàng moom iblis wane ne teraanga jii leen yàlla defal yow aadama ak sa soxna yéenewuma la ko ndax mérito woo ko waaw mérito woo ko yaay kan bañ lay teg fii wane ko ne fàng ba tax nga teg ko ay daan sanctionné ko mu ñëwaat ma bàyyi fa ma bàyyi la fa ak say ndigal ak teraanga yi ma defal dem takk ko ko xarit ba tey ma juum bëgg koo jiiñ kon maa tooñ sama bopp moo tax bari na lu ñuy jiiñ soytaane ñu na waaw bari na lu nit naan seytaane saytaane la rek yow de hmm. dëgg la moom loxoom a ngi ci waaye lu la yóbbu ca moom nag lu la yóbbu ca moom moom la sëriñ ba waxoon ka doon wax naan aouzu billahi min ashaytaani rajim di ko baamu rek mu ne ko da ngay bàyyi yëfam nag waaw waaye yàlla musal ma ci seytaane yàlla yàlla ñu musal seytaane waaye yow eh, yaa ngi sa programme yëpp programme seytaane nga ko def bu doo mën a mucc ci moom moo tax mu ne yàlla boo ñu baalut boo ñu baalut te yërëm ñu ndeysaan boo ñu baalut te yërëm ñu yërëm ñu kon de danañ bokk ci ñi nga xam ne ñu perte ji lañ yàlla nañu yàlla musal ci perte yal nañu yàlla musal ci perte ñoo yomal xiyaam taxaw ñuy séddale jëf yu baax yi nga agsi kutusu ñu euh, sa sa kaye ba dara nekku ci te fekk yaa ngi ko doon njort waaye danga nga daan ñaw te fasoo wëñ gi moo tax sa boros mi dara rafetu ci kooku mooy ki nga xam ne moo perte boo ñëwee ci yonent yàlla nuux alayhi salaam da fekk mu naan borom bi rabbi inni audu bika an asalaka maa laysa lii bihi ilmun wa illaa taxfir lii wa tarxam nii akun min alxaasiriin yàlla man de maa ngi muslu maa ngi muslu ci dugg ci lu sama yoon nekkut <laughs> waaw maa ngi maa ngi muslu maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ma dugg ci lu sama yoon nekkut ma dugg ci loo xam ne xaw ma ci dara waaw maa ngi lay ñaan daal fi ma yam loo ma yam fa <laughs> maa ngi lay ñaan fi ma yam loo ma fa waaye ma bañ laa offensé waaye yàlla boo ma jéggalut nag te yërëm ma kon de danaa bokk ci ñi nga xam ne ñu perte ñi yonent yàlla Nuux ñaan na lu ne boroomam subhaanahu wa taala ndax mission moo toll noonu mbokk yi bi ma koy tàmbali léegi wax naa la ne yonent yi ñooy ñi nga xam ne ñoo gën ci nit ñi waaye ñoo bàyyee xel seen boroom subhaanahu wa nii ci wàllu ñaan ak yi nga xam ne moo ci aju kon loo ciy déggee yow loo ciy déggee luñ ciy déggee luñ ciy déggee man ak yow moo tax ba muy wax borom bi subhaanahu wa taala naan ko faftax bayni wa baynahum fat an wa nii wa man maaya min al muminin waaw lam njëkk a wax mooy qaala rabbi inna xawmi kaddabuuni yàlla man de sama nit ñi sama mbokk yi dañ maa weddi sama mbokk yi dañ maa weddi wax naa ba sonn woote naa guddi woote naa bëccëg sama woote bi mel ne day tax ñu may gën a daw <laughs> damay woote nit ñi gën di daw falam yazidhum duaai illa firaara bu ma ñëwee sax di leen woo kullama daawtuhum li taxfira lahum jaalu asaabiyahum fi aadaanihim dañ ma naan buñ la fi digloowut mu doy waaw nu wax nee na bu ma ñëwee ci yàlla bu ma ñëwee di woo nit ñi naan leen eh, ñëw leen wuy ci seen boroom jéggul leen seeni bàkkaar kenn leen yàlla nee na ñu jël seeni eh, baaraam eh, saañ ko ci seeni nopp waaw ne ko bari wax buñ la déggut mu doy xanaa ku la déggul moom hmm, koo xamante ne li ngay wax déggu ci dara noo koy convaincre ki nga xam ne boo ko jubee mu jël mu jël ab yére muur ci boppam muur bubam sëgg ne ma sëgg ba nga jàll man bu ma la gisut mu doy maanaam affaire bi dafa metti yëf yi dolli leen ak rëy moo tax mu ne woote naa woote naa woote naa guddi woote naa bëccëg waaw woote naa ca kaw ñëw ca marché ba di wax nit ñi di ma dégg def naa porte porte seeti nit ñi waaw wax ak ñoom ci suuf daawtu euh, wala summa inni daawtuhum jihaara waaw summa inni aalantu lahum wa asrartu lahum israara kon nag li ci des mooy jéggalu borom bi subhaanahu wa taala yal nañu boole jéggal aw askan danañ toll foofu aw askan danañ toll ci féttéerlu foo xam ne li leen war a waar duñ ko nangoo gis duñ ko nangoo dégg moo tax mu ne fa qultu staxfiru rabbakum innahu kaana xaffaara yursili samaa alaykum midraara wa yumdidkum bi amwaalin wa banina wa yajcal lakum jannatin wa lakum anhaara yéen ñi nga xam ne nag li may jot a wax akas néew gëm ngeen ko te dégg ko te fas koo yéenee jëfee te am yéenee doxal ko waay waaye bari leen lu ngeen di jéggulu seen borom subhaanahu wa na istixfaar yi bari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah alazima alladi laa ilaha huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi bu ngeen ko defee seeni mbir dox ndax bàkkaar day day day day day yeexalub dox te dafa tilim waaye boobaa ngeen amum ndox hmm, yéen ñi ko soxla bu ngeen koy saxal di def te bëgg alal borom bi may leen ko bu ngeen koy saxaal di ko def te bëgg njaboot borom bi may leen ko bu ngeen koy saxaal di ko def te bëgg liggéey borom bi may leen ko kon ñaan laay wax ni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñaane nañ ñu ne dëkk ba la ñu jógee di màkkatal mukarram yàlla nañ fa dellu ngeen dem fa yéen ñaanu yonent yàlla ibrahima gi alayhi salaam ma nga fay tege way qaala ibrahimu rabbi ijahal ijaal hada baladan amina warsuq ahlahu min alsamaraati man amana minhum billahi wal yawmi al yàlla yàlla maa ngi lay ñaan dëkk bii di màkka nga def ko mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu am sécurité lay doon nga def ko mu nekk dëkk bu wóor <laughs> def ko mu nekk dëkk bu dal waaye nga wërsëgal ñi nga xam ne ñoo fi nekk meññet yi nga xam ne ñooy ñore ci àdduna bi waaw na nga leen defal koom-koom na leen defal euh, lu ne lu ne lépp a nga fa ndaama raas ak konkoroŋ ak màdd ak moom lépp rek dara desut waaw ci suuf soo koŋ da nga yéemu ci yàlla waaye ñaan ngaa nangu ñaan ngaa nangu man ak yow lu ñuy xaar ci ñaan borom bi subhaanahu wa taala liñ bëgg lu tax ñu yaakaar ne waruñ ko koo mën a ñaan wala waruñu koo mën a may te borom bi subxanahu wa ne sama bunt yi ubbi naa ko ba afal naa ko ubbi naa ko ba afal naa ko sama jaam bi lay déglu ngir mu ñaan ma waxtu wii di waxtu wu njël bu amee dogu yow fekk borom bi subxanahu wa mu jege ko lool mu julli ay rakkaam ñaan borom bi subxanahu wa mu may ko ñii nga xam ne bu doon am na kuy xam borom bi subxanahu wa ñoo ma muy al anbiyaa ñoom de gis nga. seen digganteeg seen borom bi subhaanahu wa ci wàllu ñaan ibrahima alayhi salaam boo ñëwee ca kaaba ga fekk ñaanam nga mu wër ko boo ñëwee ci wàllu njaboot gis ne doom ju baax sax bàyyiwut ba am ko door koo ñaan waaye ba muy da koo ñaan boroom bi subhaanahu wa taala ñaanaale doom jana muy mel rabbi lii min alsaalihin waaye fa basharnaahu bi xulaamin alim ak yu bari ak yu bari ñaan yooyu mën nañ cee mën nañ cee indi yu baree bari te yépp di ñaani yonent yi ndax kenn ku nekkuñ taxaw ci moom ñaan na lu bari kere bi ko borom bi subhaanahu wa taala waxee ne ko ne yëkkati kenuy kaaba gi alqawaacida min al beyti wa ismailu bam noppee rek lam def mooy ñaan rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim waaw yàlla yaa ma santoon lii ma def ko def nañ ko yàlla yàlla nangu ñu ko nangul yow mi nga xam ne yaa ngi dégg yaa ngi gis rabbana waj'alna muslimayni yàlla yàlla na nga ñu def ñun ñaar man ak sama doom jii doon def liggéey bi ñu doon ñu a déggal waaye nga def ko nga defal ko suñu sët xoolal ñaan gi wa min zurriyatina léeg nga ñëw ci famille fekk fa barke ñaana ko fa def nga def leen ummatan muslimatan laka loolu da leen a yitteeloon maanaam am njaboot gu déggal yàlla njaboot gu jub dafa mës a yitteel ñi nga xamante ne dañoo xam borom bi subhaanahu wa taala ba dañ ko daan ñaan dañ daan ñaan soxna su baax dañ daan ñaan njaboot gu jub te diggal borom bi subhaanahu wa taala waaye dañ doon ñaan njéggalu borom bi subhaanahu wa taala yàlla nañ ko yàlla boole defal yàlla nañ ko yàlla boole defal boo jëlee yonent yàlla luut ci surtout ankabut ma nga naan rabbin surni rabbi unsurni alal xawmil mufsidin yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci nit ñi nga xamante ne ay bandi lañ ñu bon ñi nekk ci dëkk bi doon ay góor jigéen ndax jabonoom loolu daa amoon góor ñoo xam ne dañoo bona bona bon ba seen moroomi góor lañ daan wër seen moroomi góor dem ci seen moroomi góor moo leen gënal dem ci jigéen cim ak jigéen ñu bona bon ba nga xamante ne dem ci seen moroomi jigéen a leen gënal dem ci seen moroomi góor lu bon yàgg naa am waaye ba mu jéemee ba tëlee la mu wax moo yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ñii seen programme bu bon bi financement yi ci bàyyi ko reconnaissance yi ci bàyyi ko teraanga yi ci bàyyi ko rikk waaye yàlla yàlla nag ma musal ci ñoom waaw musal ma ba ma leen défendre waxuma la doon góor jigéen de waaye defendre ko donc nit war naa ñaan yàlla mu musal ko ci dem ba seen dara ñaan yàlla ñii daal yàlla bu ma seen dara saf waaw yàlla bu ma seen dara saf yàlla yàlla yàlla na nga ma dox sama diggante ak ñoom ba su ma leen xoo su su ma leen xoolee sama xol bi metti ma gaaw fay sama télé man waaye euh, dem ba banaliser ko ba yow dara déranger dara déranger la ci loolu ëpp naa def moo tax moom jéem na ca la man wax naa ak ñoom nu ne nu ne bu ñëwoon ca waxtaan waxtaanam wa digganteem ak ñoom waaye nag ba mu demee ba lott la mujj mooy ñaan borom bi subxanahu wa taala na ñu borom bi boole jéggal yal na ñu boole defal sutura.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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.